السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سرين إدريسة ما يليني وباخ جدور الشيخ محمد المنتقى سرين سخرت سوال لره ما يليني مبالي نيو فك تيبو كتاري بي يب لليني وباخ لنسان توباخ دين كرم sëriñ Idrissa bala maa wax dara ay ngi sama diggante yow bu baax sama diggante yow ci ak xarit ak ci kóllëre ak ci cofeel naam sëriñ bi moo yónni ndax digganteem ak sa kilifa gii nga xam ne moo nu moo bàyyi ko ñëw fi tey di ko indil tànki tànki njaalam te mu xam xel ne tey bu doon tey bu doon Demba mooy ñëw gi tànkam nam fi daat ñëwee yoon moom fi mas a ñëwee fii woo la ko mu ñëw ñu yowante ak moom masaa ak moom ba mu xàmmi ko ca waaye diggante yooyu li mu doon gàtt gàtt mu am ay jikko yum ci bàyyi xel bu baax a baax ci diggante ci moom moo tax bi mu yëgee dem gi it mu tiisoo ko lool waaye nag mi ngi koy seedeet jikko yu rafet jikko yu baax di ko ñaaral itam dem gi yàlla na doon loo xam ne am noflaayam la ci àjjana gannaaw bu ko so sunu borom yërëmee jéggal ko ndax bokk ci àjjana yi gën a kawe lépp lu mu fa yaakaaroon ci lu baax rek mu yàlla na moom gannaaw loolu nag muy fetli sa digganteeg moom di wax ne doom nga waaye ab soppe nga taalibe nga waaye xarit nga lu xew ci yow rek moom lu xew ci ëtt boobee la yemale ndax njabootam nga wax dëgg yàlla ya ma waxoon ba ma ba ma ko waxee ba ma ko yëgalee euh, sàkku ci moom ñaan ñaanal na ko jox ma ndigal ne ma naa ñëw ba fi yow ma jaar la ko jaara la ko ko dem nag ci bisu ñaan gi dañoo amoon rek gàllankoor ci yaram moo tax ñu doog ñëw tey jii waaye ba ñu sañoon bu fekkee defee mbooloo mi ànd ak ñoom ba mu ba seede kàddu yii ñu seede ñu kàddu ko ñu seede ko ci seen kanam ba ñëpp xam fi nga xam ne mu la sëñ bi teg ak ni nga xam noonu nga ànde ak moom ak ni nga xam noonu nga jaaxasoo ak moom ak ni nga xam noonu la jàppe waaye doon nga ko jàppe yooyu itam waaye nag xëy nii la nii moo soob moo gën dañ mi nee na mi ngi lay sant taxawaay mi ngi lay gërëm ci taxawaay bi nga taxaw ci yaramu taalibe yi ci ay ndigal ak tere ak i nekk seen roy itam yoonu sëriñ bi xam ne itam sëriñ bi rek moo la ñor xam na dara ñorul la sëriñ bi rek moo la ñor loolu nag lu sori ci moom la jàpp na ko bu baax mi ngi la ci gërëm mu ngi la ciy sant te mi ngi la ciy soññ itam nag bu baax di ci daal sam xel te di la ci rafetloo njortu bu baax xanaa rek nammel gi ak géej gi gisee rek lay tawat waaye xanaa buy jàllee incha allah maanaam fexe ba ñu gisee bu soobee yàlla ah, ah barab bi nag barab bu am solo la boo xam ne sunu barab la bu dee bu ndikkee ñun suñu bopp amul benn waxtu boo xam ne du ñëw nañ ko fi. du guddi du bëccëg ba ci xew-xew bi nga xam ne moom nga fi xewal di fàttali ko bisul bu rëy boobee nga xam ne moo xewoon xew-xew Badar loolu teewee dañ ko fi ay yoon xanaa ret nii la ko yàlla dogale waaye teewee dañ ko fi ay yoon mu doon barab boo xam ne barab bu sell la kon barab la boo xam ne it barab la bu ñuy bu ñuy fàttali ko loolu bu ne xam na ne barabu lislaam la barabu tawfeex la kon nag yàlla na fi yàlla dolli jàmm te dolli fi xeewal te dolli fi barke ngi mi ngi nuyu mi ngi nuyu njaboot gi bu baax leen soññ bu baax a baax a baax ci liggéey bi la euh, ma doon jot li loo ca liggéey ba nga doon def ca ca ca ca ca ca xuru mbàkk itam nee na yëg na ko bu baax euh, nanga def naawel noonu nga ko def noonu nga ko jàppe ndax yow da fekk barab bi sëñ bi nga xam ne dafa am lenn ci xel yi ñu koy faral di fakk yow nga def ca sam xel wékku ko ci ba mën koo taxaw taxawaay bi ci war ndax naawel lépp fa la sosoo ndax soxna jaara foofu la defee ak ngooneem ci ci wetu way juram di soxna asta soxna Asta moom nga gis yàlla def na dund téeméer ak fanweer ci jàngale alxuraan rek la doon def doon jàmbaar joo xam ne daana bu xare masa am day xare ne góor ñi daa amoon sax ab sikkim tubay sax la daan sol boo ko teg jigéen boo ko teg jigéen ñi ngeen ñu xam tey di jàngale alxuraan di yor daara boo ko masaan gis doo ko xàmmee ak imaam ji man ko yàlla bindee waaye bi mu làqoo xar baax yu rëy feeñ na ci ndax euh, bi sëriñ bi nekkee jolof euh, sëriñ Bousso bi ñëw na fa siyaare si ko sëriñ bi bëggoon lool mu jege si Mbàkke mu xamal ko ne ko soxla saa tax mënumaa ñëw ba mu demee Bakel euh, dem na fa seeti ko jógee na sax Mbàkke wa jógee na sax Mbàkke dem seeti ko ñëw ñëw seeti sëriñ bi sëriñ bi bëgg mu ñëw mu ne ko soxna saa tax mënumaa ñëw mu ci tegee diir bu gàtt soxna si wàccu liggéey sëriñ bi doon ko jox ni ndigal mu ñëw Mbàkke ba foofu la wàccab liggéey te ci kanamu sëriñ bi la wàccab liggéey te gannaawam xam nga naawel ni mu mel dafa bari ndox ak xurwa mu nekk am na ci at moo xam dafa taw ba walla mi jël ko ba yóbbu ko ca biti ñu daaw fekk sëñ bi njaare wax ko ko leen waaye ñeme ngeen ko ñu ne ko waaw Mbàkke moom kay buñ ci amee ndigal nañ ko ñeme mu bu ngeen demee ngeen delloo ko defaat ko nam defoon daal di yëkkati ak suuf jox leen ko joxoon fekk ñu dara sikki ca dara sikku ca na meloon la mel. léegi jox leen ñaan joxaat leen jàngaay joxaat leen yóbbal joxaat dem delloo ko fa mu nekkoon te demee fekk ñu dara sikki ca loolu yaakaar naa ne jëmm yi ko am bariwut waaye boo xoolee ci gannaaw dana am loo jàpp ne yow. sa xel mu gàtt ne moo ko war a waral kon soxna si moom tubaarkàlla macha allah kon yow fi nga ko teg def naa ne benn góor teg ko fa benn teg ko fa kon alhamdulilah yàlla yàlla fa yiw woowu dafa la ñu tawfeex bi ñu topp mooy xuru mbàkke xuru dëkk bu yàgg la ndax sëñ mag bi mi ngi gëree jamono naa mbàkke bawal waaye bi mu gañe bi mu gañe Mbàkke Bawol tuuti rek xam ngeen ne Mbàkke Bawol la sëñ Maran sa dëkkoon maam Baaru Sadio doomi ndeyam fa la dëkkoon sa ak ñoo bokk lépp Aysa Sadio nag moo jël ma ma maam Balla euh, maam Baaru Sadio nag ku baax la woon ndax bi ko Seex Umar Fuuti yu fekkee Mbàkke Bawol wax nañ ne bi mu nuyuwanteeg moom daf ko ne ah yow fii nga dëkk waaye yow de li may daje yow ci pays yi aras yëpp taxutoon ma xam ne fii nga dëkk te maam Baara moo jógee moo moo moo moo ñëw seet si ko Mbàkke Bawol jógee yaaween googu xam nga xabru baa ngi noonu def ne maam Baara Sadio moomu nag dund na fa ba Cheikh Amadou Sif Fouti fekk fa ba loolu xew mu door a dem loolu moo waral sëñ bi xur Mbàkke la Mbàkke Bawol la gane jamono waaye bi mu gane Mbàkke Mbàkke Bawol jamono tuuti rek sëñ Mor Ansey dafa ànd ak njabootam ñu toxu kër nijaayam Ahmadou Binta Kan Ahmadou Binta Kan mu ngi dëkkoon Nja Kan Nja Kan nag digganteem ak Mbàkke Bawol soriwul dara mooy bu doon tey dañ naan mooy otooru xuru Mbàkke rek la tollool boo jógee Mbàkke nga ñëw Njakkaan waaye boo bëggee jógee Njakkaan jëm ci xurwa da ngay def nii jëm ci taliba nii ngay def dem ci dem ci xuru Mbàkke sëñ Mor Anta Sali dëkk fa ba mu yàgg ko ne ko damaa bëggoon gannaaw moom sax gannaaw nijaayam la mu wax ko ne ko mu xam ne nijaayam ji faatu am na njaboot ci kër am la nekk kon jëlu muy xëcc ñoom kër ga mu daal di ba ca xurwa mu def fa këram dëkk fa loolu mooy xur mbàkke boo dikkee di walla laajte ñu ne moom dama nga dëkk ca xurwee moom xur mbàkke xur mbàkke nag dëgg la sëriñ bi ganewu fa jamono waaye am na ñum nette neen loolu ñuy wax wat mbootu fa ko defe mu nekk fa barakam juddoo fa sëriñ Habibullahi Mbàkke juddoo fa denc ko fa mooy loolu mooy barab boobu ngay defar tey kon foofu am na histoire sëñ Abibu it bañ ko fa defee dafa yàggut dara jóge fa dem Saalum ndax xam naa ne sëñ bi bi ñuy dem Saalum mi ngi toll ci juróom-ñetti at xëy na wala juróom-ñaar boobu daal dal na alxuraan ba ñenn nañu sax nee nañu wax naa sax xëy na sax mu wees foofu ci ay at ndax wax nañ ne boobu mi ngi toll ci la tàjji daan na war naa toll ci jàng lu man ñeen fukki isib ak euh, naanaka ak ak ak ak wala daal xam naa fukki isib ak ñett moo ko tee wàcc alxuraan ñu jóge fa ànd ak maba ci woote maba boobu ñu dem Saalum ñoom ñëpp ñu dem ba dëkk ba mel na lu gent am na ab teen boo xam ne ñoo ko fa bënnoon sëñ jaar sama jaar ku mënoon a root la kon nangu woon la dafa nangu woon lool nangu dafa jéggi dayoo teen booba wax nañ ne root na ca guddi root na ca bëccëg da ci daan root lu bari di rootal daara ji ñëpp ñuy naan masaan xëy root ba root lam yor lépp ci ay defukaay ku ko romb mu ne la yo yo bayal ma ak bagan ci kër ga sama xabu gi dégg ma ko bayal ci kër ga lol dem na ba andi waxi wala fu tudd ju ñuy wax naan ma yow lo ci ba jaar yar na ci xabu yow lo ci ba jaar di yar na ci xabu lol yobante gum naan yobante am ndox mako ko waraloon day xëy root bagaan rob rek taman ko ma ma yo bayal sama xabu gi ca daara ja dañ di ko jàkkee ne yow loo ci ba jaar ba jaar yan la ci xabu ak nangoom ak nangoo liggéeyam ak yaram donga yi ak nangu leen sonnal moo ko waraloon bi nga xamee dem nañ nag ba dem Saalum diggante boobu xurmaake dafa mel lu gent ba sëñ bi demee ci ci ñi waa ñibbi waate ñibbi si waate Mbàkke Mbàkke eh, Kajoor Pataar Mbàkke Kajoor am nga ñëwaat eh, mu ñëwee mu ñëwee Pataar jëm Mbàkke ñëwaat Mbàkke Bawol loolu lépp xul Mbàkke daanaka kenn nekku fi ay teewut bi nga xamee ne ñëw na njaareem nag ñëw na xul Mbàkke fekk booba nag dëkk na fa sañ bay jaxate ak sëñ se ak sëñ ak sëñ Cheikh Ibra Fall mu sañc loo leen fa ay kër nee na maa bëgg ngeen wétti leen ma abibu moomee ndax abibu kat feeñu na ma nee na moom nii nga ma mujjee àdduna ma weet day bu ma ne nu mujjee woon àdduna doo weete noonu mu dafa yebal sëñ bay jaxate ak Cheikh Ibra Fall ñu dafa fa ay kër am na bis sax jóge na jóge na njaareem bëgg a dem Touba ndax namm gum namm Touba moom dafay dafa bëgg dafa mas a bëgg Touba. mu ñëw ba xur Mbàkke mu yendu fa yendu sëñ may jaxate ba ngoon mu wàññi ko ne daal bëggu tàgg Touba te tàgguwul tubaab bi te amul am na ci boroom ndigalal bu tubaab bi xam soxlaam mu daal di wàññi ko waat yendu sëñ may jaxate dellu yoon woowee jur na fa tisbaar jur di fa takkusaan fa mu julli woon tisbaar takkusaan mooy jàkk jooje nga jàkk jooje nga fa gis ci biir kenn loola it laaj na sañ Bay Jaxate nekkoon ndax xam nga abi bu fu mu nekk ñëwaan ko ay barab di nattable mu ne leen maa ngi dellu njaare bu ma demee naa woo naa woo Moodu Xulle mu ñëw wan leen ko ndax moo ko fa defoon gudd na gudd na fan. moom day am woo ko mu ñëw mu ñëw ba ak jaxate jéego jéego ya te garab gam ko def wetu garab ga mu ko defoon mu jéego neen jéego benn jéego daal di wax ne fii de lii de buñ ñu ko gasee daañu fa gis ab buut bu ñu fa gisee buut nañu xam ne barab baa ngi nii. waaye nag suñ borom moom daa am loo xam ne bu ko xasee teg ci kaw suuf du nangu dara am réer. mbirum sëñ Tuubaa dara du ca réer loolu moo andi xabru boobee tey eh, ñu xàmmee ko ba di ko defar ba nga jot ci yow mii ba di ko defar yàlla na yàlla fay la yiw yàlla na yàlla nangu sab liggéey yàlla na yàlla fayal ko ba faaw du réer mukk sa liggéey boobu it mu dencal la ko fu yàq yëgul ñu lay sant bu baax yaa ngi yi nga ko àndal yëpp ne gërëm bu baax a baax waaye lépp ci turu sëñ bi nag ñu lay sant bu baax la gërëm di di ndokkeel di yeesal di ñaan barke di ñaan ci barke weer wi ñu nekk di barke weeru koor di weeru tedd di weeru barke di weeru ngërëm di weeru njëggal suñu boroom dolli fi tawfeex dañ ci jot def lépp ci koor mu nangul nu ko may nu yit du fekkee waat ko yeneen di koor yu bare bare bare bare ci barkeb Sëriñ Tuubaa maa nuyu ñep di siar ñep di mën ñep ak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh am ñu ngeen bëggoon far am historique man nag li ma ciy teg mooy euh, di bég ci jotaayam defe ni euh, ma kenn ci ku di kilifa yombul waaw ndax ñoo am waxuma ne ñëpp may dikkal waaye ñu bari may dikkal ndax démb gisuma gisuma ku ngeen fi gisul waaye yàlla dafa dogal euh, xaritoo ak euh, ab ànd ak euh, nawlante ci jikko ak ci melokaan wax dëgg gisuma ci ndendam ci sëñ ci yoonu Sëñ Tuubaa waaw ci ci doon gor ci am diine ci mën a téye kóllëreem da ko donn ci waajuram bu tëddee ba mu jeex takk loolu moom te du tey la ko am du am riir a dikk mu am ko kooku maa ngi moom yàgg nañu def nañ fukki at yoo xam ne tàggoowuñu daanaka kon man damaa seere ci moom loo xam ñu bari mënuñu koo seere noonu it mën ngeen koo seere yéen ndax yéen a ko waxal seen bopp bi ngeen ko gisee nomm nan la yéen a ngi gis gan te terew ngeen ko nomm nan la te mosuma di ngeen wax ko nit waaw loolu nag euh, jikkoom melokaanam teg àddina nii ci wetu càmmoñam téye ngor ak diine loolu mooy def sunu xaritoo maag moom sunu sang bu tedd bi it sëñ Muntaxa mi nga xam ni ni mu ko waxee sunu sunu baay la ba noppi di sunu yaakaaru àddina ak alaaxira di sunu sag ñu koy siggee ca démb ba ko yàlla teggul ci jal bi mosuñoo màndarga woo kenn ci yoonu Sëñ Tuubaa ngeen xam ko sama njaboot xam ko ku dul ci moom moom moomu daf ñoo defal maa moom loo xam ne yombul daa am liggéey bu ma dénkoon liggéey ba bi ma ko waxee ci moom mii maa moom ñu bokk jotaay ak bi ca yeen sëñ bi wax ñu liggéey ba bu ñu waroon def poroxaan muy matériel bu ñu waroon jënd ñu def ci yitte maa moom ndax ñoo ko bokk waxtaane ca kër ga ma laaj ko am xelam mu rafet mu teg ma ci aw yoon fi saase ma jël ñin ci mën a jàppale ñëpp ñu def ko yitte def ko yitte yu yitte yu yu gaaw sax nag nga xam ni sëñ bi day nitu pas day nitu Pastef koo xamante ni maanaam dem ba egg ceen at yi yoonu doog cee jot loolu man su ma amee lu may jooy loolu laay jooy waaye su yoonu jotoon ci moom ci ci ci ci ci ñun fi ñu toll kon dina def ay miracle ay ay miracle lay def kon du yem du liggéey day def ay miracle waaw ndax man xam naa ko jege naa ko xam naa li ci dëndam ak xelam ak li mu yéene sëñ Tuubaa man mu yéene sëñ Tuubaa xëjul ci dundu dundu cee xëjul que loolu nag indi woon bis boobu bi ma ko woowee na ko sëñ bi yaaram man de li fan li sëñ bi buggoon dafa ma ni yembra mun a ma indi ko ko Tuubaa ma départ indi na ko ay échantillon laa mel ndax matériel bi dafa bari ay échantillon donc la mën indi kon ab oto lañ jël def ci échantillon bi ma dikkee maa ko fekk daru minan ci ci gi ma ñew ma ak mom ñu présenter sing bi bagage yi tek ko ni ma bi am nga ci nangam bi am nga ci nangam bi am nga ci nangam waye muy qualité yi gëna supérieur ndekete ma ngi moom ñu ngi bëgg ci dabu gi ni dabu ma bëgg-bëggam mom mm-hmm. ndekete sing bi mom pas-pas biñ ci def mam yitté yitté giñ def ci ci ci ci bi wa gaway bi ndax daf ma wax ni ma dafa japon ni li li na ma lool ndax japon ni dina jël jamono ci ci nga war ko bay digënté bi gaaw ci mom wa man ko lepp dé mak ak sama sang bi ko and ñun ñaar ñoo bokku wax ñoo ko waxtaane mu def ci yitté mu ne da nga xamni ni na ci mbég go xamanteni leer na ma ni fonkoon na ko. dëgg la. ndax waaw ndax da ko doon jëfandikoo te wax na ma ko. kurus googu bisu korog ak bëccëgu tey bii amul bis. bu ma dul jëfandikoo kurus googu amul ci bis boobu. ak bëccëgu tey bi. ba bëccëgu tey ba ci suba tey. kurus googu laa féetewoo ci sama sama gën a foofu. Mhm. daal may daal may jox. jàllaa bi bu kii kon mu tëdd ci mantu bu rafet boo xam ne jox ma ma ko waa sëñ bi yi may jox nag ñu dañoo dikkoon rek maag maag maag yaaram dikk di la di la di la présenté kii ñu ñëw dañoo war a jëf loolu ñu jëf oh. mënuma sama xol a sedd ndax ndax yitte ji ngeen def ak hmm. pas-pas bi nga xam ne moom ngeen def koroog ci bis boobu mu feeñalaat leneen loo xam ne loolu laa dul fàtte mukk ci àddina loolu tax na ba moom mii duma koy mën a kenn su ma ko defee rek ndax démbay dëgg tey du dëgg ci gar mi man sëtu buur laa démb mooy dëgg ci man man tey du dëgg ci man man démb laa démb laa démb laa gëm sunu ànd ca bis boobu sëñ bi dafa toog maa ngi moom ñu toog nii nanu yàlla jéggal sax korog sëñ bi sax ci suuf la toog oh, ci suuf la toog toogoon ñun ñu wër ñu seq ko nii sëñ bi ni yéen ñaar de boole naa leen ci yéen ñaar ñii boole naa leen bëgg naa seen ànd bii ngeen ngeen téye ko wéer ko te xam te ne bég naa ci lool ànd bu ma neex ngi yeneen yeneen yu ñu wax yoo xam ne du jotaay nu mën a fii loolu nag da cee baax may may leeral ko da ngeen xam ne sëñ bi euh, fu mu nekk fekk naa ko fa moom mi mm-hmm. fu ma nekk fekk na ma fa suñu diggante ñun ñaar du diggante buy buy yem ci àddina mm-hmm. ndaxte man bis bu ma sëñ bi dénkee loolu mm-hmm. fekkul woon ma am kenn man oh. ndax damaa jàpp ni sama pas-pas ak sama yéene ci Sëriñ Tuubaa man damaa jàpp ni sax wuti àndandoo daf may tardeel gëw ma ko daal li ma gëm mooy féete ci li ma sëriñ bi tegoon ci li ma di ma yare mhm. jaamu sama borom mhm. def tey am luma dundek dund ak sama njabot mhm. ak jitte gi jitu nak moy am luma ma kor a tey ji ba di set fi ay buntu ne ci serigne bi ma man ko jagal ta lolu man caa def lu bari ci sama dund oh. lolu moy sama bëgg-bëgg lolu loolu euh, boobu la ma fekk nga xam man bima serigne bi di ñu taxoo ñu taxoo ñu ñaar fekk ñu ñaar taxoo nañ ci ndiarim ki dama daan ñew di siyaar sëñ bi mhm. ci ay jamono yu ne ndax mhm. moom laa teg sama kanam mhm. maa ko tànnal sama bopp it kenn tànnal ma ko dëgg la sëñ bi doonul kun ma kun ma kun ma xiirtal mbaa kun ma présenté mbaa kun ma woone a nangam dëgg la sëñ Bass Rokhaya bi nga xam ne maa moom ñoo fa ànd man mii maa ko woo ay kër sama téléphone woo ko ne ko damaa amoon ci yitte mu ñëw sama kër ca Touba man ko man ko sëñ bi de yow ma ne wax damaa bëggoon a gont ñëw ma ne daa fekkoon ma jëmoon fii ci euh, parti Sëñ Abib yi. am na ku mu doon seet foofu. Mhm. def naa ku nekkoon ca Fuuta. Mhm. waaw su kenn ci njabootu Sëñ Abib yi. mu ñëwoon ko mu ne moom laa doon seet mën naa far jaar ak naa wong ma tey. Mhm. ñu bokk toog mën a ko mën sama yitte laa bëgg a dem ci moom. ndax mënumaa def ndaw. Oh. ki ma toppoon. di woon mag. bi mu fi jógee tey jiitalu ma kenn sama kanam. day dox rek di taneex taneexi loolu woo am am naa yitte yi nag yu toll ni ki ak pas-pas bu toll ni ki mm-hmm. dinaa moytu ba kenn du ma dugal ci dara mm-hmm. oh. waaye mm-hmm. daa doyul faaw nga am lu la lu la sange faaw nga am lu la yiir addinaa bindoo noonu waaw ab yonent sax day wut sëslaay wax ma nag nag ndongo loo xamante ni tey jii maanaam yow leer na yow sa jiwin bopp yow xam nga sa bopp ne yow doo dara yow mu ne ma nga taamu ci kan moo tax moom moom daa mel ne ku yëfi jëyee ko ma ne ko sëñ Muntaxa ma loolu kañ la dikkal ma ne ko loolu yàgg na de oh. ma ne ko moom dama ko mos a suivre ma ko dama ko mos a suivre loolu ñoom ñii xam nañ ci dara moom dama ko mos a nawloo moom sëñ Abdou Hakim mos koo suivre oh. koo bàyyi xel ci ci ci maanaam daal mu doon koo xam ne tey jii moom moom nga bëgg daal moom nga choisir mm-hmm. ma loolu de dinaa ci mbég mbég goo xamante ni man bisu koroog sax laay doo ko xam moom diggante ak sëñ bi moom leeral ma lépp nag leeral a dégg maam ñoom ñaar ca tiib leeral ma si ci seen digganteeg sëñ abibu oh. lépp nag ma ah, kon da man sëñ bi kon lii baatin la mëna ma waxtu woo ko bëggee rek dina mën a ne mu mel nii nag ñu dugg nag dégg maam ci weer koor te nii ñuy wàcc ñuy weeru ma koor gi de njaarim lay féete mm-hmm. man ko dana koy fi yitté dé mhm. allahu akbar ma déparé fi ci sama kër mhm. woko téléphone ko sing yitté ji wala waxon dé ndax dina mën né ne ma kañ nga ko bëgg mën ko suba ak jàmm ko ma ecc ma ak mom ñu and ko ma diké ma ngi fekk ma diké ñala fekk ak mhm. sëñ dëgg la sing bi mu présenté ma sing mu taxaa yi sa koro bi ma nuyee rek sëñ mu taxaa maanaam su ma génnoon dikkaat rek sëñ bi daf may oh. allahu akbar solo def na ci man yitté jo xamni dafa melni ni eh, ci la njëkk yëgee baatinu sëñ tubaa ci mom ndaxte mën ngaa bëgg man nga bëgg wali wu bëgg nit ku baax man waaye so diké mu melni day am lu dess ndax man maga ma yar ki ma yar sëñ tubaa ko yar gis naa mag ñi bari tamit kon amna ci lo xamanteni tay ji bobu suma dikkon rek dina am su amon lu dess di nga ne ah, di nga na wa di nga am lo bàyyi xel waye dama na la bobu suma gennu ni nii dugg si waat li fam mbooloo yi bari bari dina ma jaay te dina ma dina ma dikité ni mag ñi mel ma gis melokaanu nag mag ñu baax ñi àndoon ak Sëñ Tuubaa hmm. dama toppee woon ci ma gis melokaanu ci moom sëkk korog bànneex rek laa fanaanoo sama njaboot gi xam ne ma ñu gisee ko dama kontaan man leen man dajale jigéen ñi ne ah man de li ma bëggoon am naa ko kii nga xam ne moom laa soppoon de hmm. yàlla dimbali ma tey jii nuyu naa ko toog na moom hmm. waaye am naa ci moom yëg ci ci jotaay loo xam ne dinaa def yitte sama digganteeg loolu. def nga ko bu baax. loolu jiitu na sama jiitu na sama liggéeyu naawel. jiitu na sama xamanteeg mbusoo bi. Mm-hmm. sama xamanteeg ñu bari ci ëllëg. moom kon sama digganteeg si Muntaxa loolu da ciy baax ñu leeral ko ma leeral ko wax soo leen moom it su daan ñëw ci sëñ bi bis ba ma ñëwee rek suñu gisul ci bisu yoon woowu yoon wa ci topp rek gis nañ maam mm-hmm. la sëñ Bas présenté yi waaye bi ñu présenté mu mel ni dafa attire sama attention mooy mel ni ma dama attiré attention. nga xamante ni mën ngaa nuyulee ay nit ba noppi soo leen nuyulee dellusiwaat beneen nuyulee waat leen loolu xewul sama diggante woon. dañ ñoo nuyulee moom mu mel ni ku ku ku am fu ma def. ma it ma am fu ma ko def. sama jigéen bee di Adja Ngone mais daal di jekk ba saa ne ma sëñ bi man ko amul ma kii mooy kan man ko kii bi naa mooy taaw si bi. mu ne ma de bëgg naa ko. te oh. moom na nday la ci man <laughs> moom nday la ci man li may wax mooy pour yaay de wax dafa moom de bëgg naa ko dëgg la te dafa ci wéttal de dëgg la mm-hmm. wallaahi la nga def ma ni sama ndey nelawee mm-hmm. mu def yitte ju mu def tey jóg sëñ bi euh, moom toog na ma ne ko nag ñun ñaar waaw ah, am na lu am na lu xew suñu diggante. te sama njaboot gi jëw nañ la. jàpp nga ma jàpp naa la waaye njaboot gi dañ laa jëw foo nekk. dëgg la. nag samay bët lañu. la moom te daa mel ni bëgg na ma am wéttal te yow tànn waaye fekk na tànn naa la. moom mii mu wax ma lu mel noonu. ni mo indi kon suñu digënté mhm. ah, ñu ñaanal suñu wajuru tedd yi ñu seigne muntaha ñang mhm. ko yalla bayyi ko xelam amin amin geste bi mu def tay ji mhm. wax deug doon ki mu doon rek tax ak melokan bi ko yalla dox ak ni mu mëna a nitam ak ni mu mëna ni mëna mën nitam ak ni mu fonké njabotam mo waral demb mo mu ca bërki soxna ci bi señ bi wacce ma yëgal ko ko mu wax ko si ngi ñaan gi rek laa jublu woon man li ma jublu mooy mu bàyyi xel waajur yi ndax nag ku amoon ak moom diggante la dafa ma wax bis ne ma jotaay yëpp am na bu ma ci dàqal oh. mën na ko ban na si Mbàkke mu ma bi ma toogee sa bàyyi oh. nettali sa dem tarbiya nettali si leeral mu ne bi mu leeralee mu mm-hmm. ne fi ma toog mm-hmm. Idrissa yëg naa loo xamante ni ci ci ci diggante boobu ci moom ci mm-hmm. ci ci ci ci waa ci waajur mm-hmm. waajur bu baax yëg naa ci moom loo xamante ne jàpp naa ko ci mm-hmm. manto manto boobu ma sëñ bi jox koroom daf maa wax na ma bagage yi ma jox ma tëjee loolu daf ma jox bagaas yi na ma lii barkeelu dee ko jëfandikoo bii dee ko jëfandikoo ñaari barkeelu daal di yëkkati man na dama manto bi man ko mënuma sa sa bàyyi laa ko jox. sama bàyyi manto boobu. maa ngi bëgg sax suñu demee ñoom Isaac ñoom bii indil ma ko. fonkoon na ko fonkeel goo xamante ni. daanaka it rek la koy sol. bis it ñu jële yëre yi mu jëloon màkk bis mhm. it kese lay sol mant boobu na ko fonkeel goo xam damaa dikk ne ko bàyyi maa man ko yore am lu rëy maa mhm. ma ko lii de sama da oh, mu ne ma laa ma ne ko moom teg moom kat waxuñu fa say wax de oh. ma na ko dem dem liggéeyloo maak sama sama sama frère bi sëñ sëñ koso mhm. ñu dem liggéey yëpp yëbbal ko liggéey ba noppi xolam waaye lim la loo taalee xalaatala la man ko bàyyi loolu moo yéeme. Mm-hmm. yére boobu da ko fonk moom la demee it booba. Amin. Amin. fas yéene yéene ànd ak sa waajur tedd yi yéen ko liggéey lépp nga liggéey ko te ñu ànd ko amiin amiin amiin yaay amiin waaw yàlla gën leen fee waaye fekk maa dégg si ko bàyyi mën bi dëgg la sang bi ma man ko moom teg moom kat waxuñu ko say wax de bopp nag sama diggante sëñ bi mooy moom sëñ bee ko yebal dëgg la waaye ñëw boppam moom lu ma am. mu neex. ak mu naqari. ñaari yëpp da koy bokk ak man. wallaay noonu la ko yàlla def. suñu borom fekk sa fan. amiin amiin wéeral la te taxawu la. ba li nga yéenee ànd ak sa waajuru tedd wi. yéen koo liggéey lépp. nga liggéey ko te ñu ànd ko. amiin amiin